monsieur le président mi nga xam ne dañu la forcé dañu forcé nga nekk président dama bëgg nga seet ci benn mbir damay dox ci couloir du assemblée nationale ñu naan ñenn ci ministre yi ak ñenn ci DG yi balaa ñoo ñëw fii dañuy indi ay millions di ko xëpp député yi pour député yi di leen di riitil pour député yi di leen di wëyal pour seen budget gaaw a jàll bu dee dëgg la dama bëgg ñu corriger loolu parce que li ñu soxla soxlawuñu député yoo xam ne dañuy ëmb seen sankal ngir ëmbal leen seen kersa askanu Sénégal dafa soxla député yoo xam ne dañuy wax te askan wi tax te yàlla tax et wax ndax ministre tax ndax déedéet tax bu dee du dëgg alhamdulilah monsieur man d'accorduma ak nekk ministre nekk maire d'accorduma ak nekk député nekk maire monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow mais compté juróom benn ndomba tànk xaw ma naa dëgg la konte yaa ngi am juróom benn ndomba tànk waxoon naa la ko naa ko waxaat te li tax ma koy wax du animosité personnelle dama koy wax parce que Sénégal xel warul mën a nangu nga nekk ministre nekk maire nekk vice président fédération nekk leneen ak leneen ba pare nga bugg a doxal li la askan wi dénk la preuve def nañ li ñu mën ak li ñu mënul pour nga jàll tey pour nga dem Qatar mais or pour man Qatar c'est pas la priorité na keneen nekk xaw ma deuxième vice président yow nga nekk ministre nga yore rek mbiru sénégalais yi. Euh, indi nga ma ay tontu maa ngi lay gërëm di la sant mais rapport bi tey la ñëw naa vérifier ak suñu mbokk sénégalais yi nekk Gabon te SNHLM sàccoon seen xaalis na vérifier auprès de sénégalais yi nga xam ne nekk Thiès te SNHLM sàccoon seen xaalis naa vérifier bu dee li nga bind loolu la alhamdulilah bu dee du loolu naa ñëwaat ci yow mais lenn bëgg naa ko laajte sénégalais yi nekk Thiès te SNHLM sàccoon seen xaalis kañ lañ leen di delloo seen xaalis ndaxte fayloo nañ leen ñaar wala sax ñetti yoon loolu defoo ko ci li nga xam ne moom mooy këyit bi bi ma xoolee 2012 ak tey li màndargaal saytu wi nu président Macky Sall ñett la toje toj tëj moo tax ma koy woowee Macky toje toj tëj toje bi lan la bokk na ci toje suuf suufu aéroport ñu toje suufu almer ñu toje suufu hôpital ñu toje suufu kawoon ñu toje suufu Vélingara ñu toje suufu Matam ñu toje suufu Dakar ñu toje suufu xawma ñu toje Ngor ñu toje Yoff ñu toje Kaolack ñu toje Thiès Tëngéej Mbour ñu toje fépp ci Sénégal mais y a un problème il y a problème ndax lan politiciens yi bu ñu bëggee gaaw am xaalis sàcc suuf ndax lan politiciens yi bu ñu bëggee financer seen campagne électorale sàcc suufu béykat su sàcc suufu sàmmkat sàcc suufu néew di doole mais dafa war a jeex il faut mettre de l'ordre il faut mettre de l'ordre dans les spoliations foncières dans l'accaparement foncier te borom bayre yi ñoom ñooy sonn ci loolu néew di doole yi ñooy sonn ci loolu comment avoir la souveraineté alimentaire bu fekkee ñu ngi sàcc suñu suuf di ko jox ay doxandeem ban réew ci àddina bi la sénégalais mën a am un mètre carré de suuf ban ban ñun ñuy ñëw di joxe di joxe di joxe ñun ñooy dof ci quoi ci àddina bi ñun nit yu ñuul ñoo gën a dof ndax lan tubaab yi yebu yu ñu de ñi ñu jiital la ñu yeb te loolu dafa war a jeex il faut mettre de l'ordre dans ça suufu la terre à ceux qui la travaillent nañ ko bàyyil béykat ak sàmmkat alors euh, li ma si bëggoon euh, yokk moo di ne monsieur le ministre bokkoon na ci li nga xam ne moom lañ la waxoon ci commission la kafrinisation ko waxoon ci commission te dëgg la en fait ce n'est pas la cafrinisation mooy yow Guy Marius Sagna nekk nga ministre yaa ngi dëkk Dakar nga jël lépp pour sa clientèle politique bu Dakar pas pour Dakar sa clientèle politique bu Dakar donc c'est vrai même dire la cafrinisation c'est impropre il faut que loolu jeex il faut que loolu jeex Sophie Gladima moo fi wax nii ñun ñëpp ñu dégg ko en commission nee na moom ministre bu waree def téeméeri mbir yi quatre vingt def yi mu jox ko sa clientèle politique moo ko wax wala waxu ko on ne veut pas d'un Sénégal pareil on ne veut pas d'un Sénégal pareil libéré Pape libéré